maa ngi nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam mais di jiital ci nuyoo bi imam Mouhamed Diop bi nga xamante ni tey moom la yàlla def mu jiitu ci koñ bi di ci teg waa koñ bi yëpp parce que taxawaay bi tey rafet na trop mais di féliciter suma sœur madame Kassé parce que aussi lii moom moo ko coordonné depuis bi mu jàppee bis bi amul jour bu muy toog bu ma dul woo xam naa ne foogoon na ni sax bu ma ñëw mais ku xam définition politique xam ne awma benn gêne ñëw taxaw fii ci ku xam définition politique laa wax ku ma xam xam ne je contre la politique de Macky ku ma xam xam ne damay xeex suba ak ngoon pour Macky Sall jóge fi mais bu jugee lu jum pour defar koñ bi su Macky Sall ñëwee fii man maa koy teel loolu moom aw ma ci aw aw aw aw ma ci aw ma ci lu ma ci calculer seetuma ku ma ci mere ak ku ci am ku ku neex noo koy gisee ku ne noo ko gisee sa problème la mais initiative bii nga jël dañu ci war a ànd ak yow soxna si nga xamante ni moo ko initié nga xam ne peut-être man ak moom miinantewul mais xam naa ni baayam ak sama baay ay wëllëre la lii organiser nañ ko fi bataille waaye bët bu set man kese maay organiser amul fenn benn nit rek ay organiser Ndiaga Diaw kese daa moom koñ il faut ku am initiative bu rafet indi ko waa koñ bi may ñaan ñëpp jàpp ci parce que lii initiative bu baax la parce que koñ bi bu setee comme li imam wax suñu doom yi duñu feebar donc soxla si suma doomu bàyyi la suma doomu ndey la parce que suma yaay buggul jaww ñëpp xam nañ ñu meloon ñoom seen kër te ba léegi loolu dañul ñu ngi lay encourager di la féliciter politique nag dafa jafe surtout Thiès mais mën nga konte ci suñu soutien donte ne bokkuñu ay parti politique lépp lu ñu mën ci xelal la lépp lu ñu am ci ay xalaat yu la mën a jëmale kanam incha allah mën nga compter ci ñun danañ la ko wax. beneen bi ci des mooy ñu ngi lay ñaanal secrétaire général ministère ba de la pêche mu jël initiative yu mel nii mais nañ leen ko ñaanal mu nekk ministre de la pêche xanaa mu nekkee ministre peut-être dina gën a dina gën a yaatu te mu nekk nag bonheuru quartier bi parce que au moins ñu ne suñu koñ am na ministre waaye ñaanal leen bu mu nekk ministre waay maa ngi remercier presse bi yëpp di leen sant di leen gërëm donc loolu laa ci amoon kàddu yi may wax Gilbert suma frère maa ngi lay nuyu nii la rek politique moom euh, jàpp rek doo bàyyi maa ngi sant jigéenu kon ñëpp maa ngi leen di remercier jërëjëf. secrétaire général de la pêche nekk bële ca ministère de la pêche. ah liggéeyal ma jooju ay sama. maa ngi nuyu imam jóg na léegi maa ngi nuyu président ASC ASC bi ak ki mu yebal maa ngi nuyu coordonnateur UGC bu Dakar bu bu au niveau national ak coordonnateur bi nga xam ne moo nekk Thiès di Ibrahima Mbaye maa ngi nuyu euh, qui fait représenter service d'hygiène monsieur Ndiaye di nuyu population bi yëpp waa cité Ousmane Ngom di ci peral nuyoo jigéen ñi di nuyu euh, balayeuses yi ñi nga xam ne tey ñoom ñoo tax fii mel ni mu mel dañuy ñëw rek pour di leen yokk waaye seen liggéey lu rafet la defe naa ne ma bëgguma fàtte kenn ku ma tuddul sa tur xamal ne yaa ngi sama xol maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di wax ne gis naa leen tey nag dama am mbégte maa ngi nuyu waa COJER sama pre sama rakk yi ak sama doom yi nga xam ne dañu ànd ak man ci liggéey bi te yàlla rek tax pour dooleel ah, président makisal maram kase duma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla ak ñoom Eder ñoom Samba Massayer maa ngi koy nuyu ñëpp maa ngi leen nuyu nee naa maa ngi nuyu presse bi maa ngi nuyu aussi comité communicateur traditionnel yi ñi fi toog ñëpp ñii sama ay mag lañu ak samay rakk lañu ñoo ma wër kii sama jabar la muy jabaru Atoumane ànd ak man ci liggéey bi kon ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di sant ku ci nekk xam naa sa taxawaay. xam naa sa pësteef xam naa sa yéene tey nag dama leen wax rek nag sama mbégte dafa rëy waaye sama mbégte dafa gën a rëy ci tax li tax mooy action yi ñu initié tey dañ koy lancé fekk démb ministre de la jeunesse jaar na fi te cadre bi mu fi jaaree mu bokk ak cadre bi ñuy liggéey ñu mën ko ci articuler ndax état benn rek la mooy vacances citoyennes yi vacances citoyennes yi nga xam ne moom la lancé fii ci Thiès waaye dañ ko lancé woon Guédiawaye donc dafa ñëw fii ci région de Thiès démb donc bu demee ma ñëw loolu yëpp dafa inscrire ci action gouvernementale ñu tànn nag def ko fii ci cité Ousmane Ngom am na ñu wax tey lu tax waaw mais dañ koy élargir ndax boo déggee unité de coordination bi li mu wax Euh, inspect euh, le le nga xam ne ñoom ñu mel na ñun rek la ñuy wër lii nag liñ ko defee dañ ci ànd dañ ci lëkkaloo ci wolof ak li ñuy wax ñi nga xam ne moom lañu président de la république dénk ñu saytu déchets yi maanaam mbalit mu dëgër mi lu mbalitu ndox mi mbalit bu dëgër mi ñoom la ko sant pour ñu def ko lëkkaloo ci aussi ak service di d'hygiène liggéey bi nag liggéeyu set la rek naam biir kër yi set nañu waaye gox yi biti bi war na gën a set loolu moo tax li nga xam ne dañ tudd ay sën la yëkkati nañ leen dindi nañ sën yi waaye damay wax leen mooy lii dafa war a nekk loo xam ne mooy lu mujj set setal set setal dangay setal waaye bu fekkee li nga setal boo ko setalee ba pare ñëw tilimalaat ko defe naa ne du ko jar yëf yi dañuy wax ne yëfu comportement la yëfu comportement la voilà yëfu comportement la donc comportement yi rek lañuy defar ci biti ci biir kër yi amul solo parce que nit ñaa ngi defar ci biir kër yi biti bi mooy problème biti nag du pour mbalit ndax mën nañ fu ñu nekk fu dañu war fu ñu mën a jaar war fa mën xalanku cadre de vie dafa bokk ci développement nit bu fekkee ne boo génnee fi ngay jaar yëpp dafay set di nga sawar dox di nga sawar doxantu te sa sante sax def ciy répercuté mais bu fekkee boo génnee foo génn mbalit la dafa di loo xam ne que ne du lu rafet ñi lay seet sax duñu duñu sawar a dikk foofu la ñuy waxee ma leen di ñaax rek foofu ne man maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen kinam waaye bu doon sama sago buñ setatale tey société Ousmane Ngom dootuñu ko setal dootuñu ko set setal dañuy dem beneen gox set setal fa mais fii dañuy continuer di bale di rafet di ko maintenir tey yéen a ngi commencé bale bi ba bañ koy jeexal waaye il faut que bés bu nekk ngeen mel ne ñu ngi leen di surveiller li service di d'hygiène wax léegi ñu ngeen mel ne ku ñu surveiller loolu la tubaab di wax autocontrôler sa bopp soxna ma wax na léegi problème bi ngeen di jàkkonteeg ci affaire u euh, euh, sëkk yi ak kan yi ma ne ko loolu ci suñu programme la kon defe naa ne tase nañu foofu croisé ne mën nañu wax ne que ne sëkk boobu daañ ko def incha allah li ci des nag ay caniveau daañ ko yóbbu fi ñu ko war a yóbbu daañ ko yóbbu fi ñu ko war a yóbbu am na un euh, jeune bu wax léegi ci problème mu aide bien sur on va vous aider mais on va discuter dañuy waxtaan pour ñu xool les besoins et le comment li ñu ci mën a def daañ ko def bu neexee yàlla kon loolu topp na boor léegi nag ci samay ay programme dafa am yeneen yoo xam ne def ci nekk mu participer ci li tubaab di wax citoyenneté maanaam nga bokk ci gox bi xam sa sa ay yelleef ba pare nag di joxe li nga xam ne yow moom nga matle ak sa dëkk ak sa gox ak sa état bi nga bokk maanaam yaa ngi laaj droit waaye dafa am loo xam ne daf la war ñu ni nag da ngay loolu da ngay jël ci temps bi nga moomal sa bopp nga organiser nga jox ko sa communauté ci loolu la ñu fi nekkee maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant waa COJER di sant ñi ma àndal ñëpp di wax nag di sant Pape Seck ku fi toog ku ma tudd ku ma tudd ñëpp maa ngi leen di gërëm waa UCG gis naa leen waaw reboisement bi dama ko ci boole woon ne leen ci programme bi la bokk et mois d'août lañ koy def dama ne leen Thiès dafa mësoon verte cité Ousmane Ngom c'est setu nouvelle cité xam naa loolu ba garab yaa ngi ci biir kër gi kër yi mais boo duggee ci Google nga xool nga xam ne garab yi doyul kon dañuy def ver li ñuy wax verdissement loolu ci mois d'août bi dañuy xaar rek ba nawet bi gën a dugg tuuti ñu ñëw bokk ak yéen liggéey boobu kon maa ngi leen di xaar ci loolu aussi leneen li nag defe naa ne euh, Gilbert wax na ko léegi mooy bala may dem ci ci ci tudd wi suñu dox dafa nekk tam dox politique ñun suñu objectif mooy réélire le président Macky Sall en 2019 lii ñuy def nii amul couleur parce que activité citoyenne la parti boo bokk ci nga bokk waaye maa ngi ñaan njaga sama rak mu ñëw fekk ci président Macky Sall ndax ngëneel rekk ci nekk rëccu nekku ci kon maa ngi koy invité ci loolu mu ñëw waaw bu mu ko combattre na ñëw dëgëral ko ci loolu laa koy invité li ci des nag mooy le 6 bi dafa am loo xam ne dafa xew mooy finalu tournoi Ndeye Tické Ndiaye première édition bu football parce que danaa dugg ci beneen euh, fànn ci sport yeneen domaine waaye ren moom football la final bi la 6 la ci terrain tund wi dama bëgg nag ngeen ñëw massivement ñëw supporter les équipes ñëw aussi soutenir soutenir ma dama leen ci invité su boobaa nag am na ay loowu équipement yi nga xam ne dañ ko jagleel ASC yi pour dimbale leen ñu beesaat tuuti ñu continuer ak ñoom rek dañ ko yemale foofu waaye xëy na mu am yow nga xam ne que yeneen surprise mu ëpp ko waaye pour le moment huit yi moom nañ retenir na que ne c'est assuré incha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant sant boo xam ne xaw ma fu muy yem xam naa fu muy commencé mais xaw ma fu muy yem di jigéen ñi jigéen ñi daa leen dimbale parce que dimbale leen mooy dimbale sama bopp kon maa ngi yéen ba di 2019 président Macky Sall ñu falaat ko maa ngi yéen ba de delà de 2019 maa ngi yéen pour la vie